Asta oh, Qu'est-ce qui se passe dama remarqué bi ñu ñëwee ba léegi danga toog jàpp sa ñaambur la kati li nga nar ak Lisa moom nga ma waxagul ba léegi damay bañ nga def loo xam ne Thank you, Pastor. Duma xamante benn erreur je suis assez grande xam naa bu baax li may def te duma la rek gisaa nag entre man ak moom la. je sais te loolu moom nga ci gën a tiital parce que bi ñu xaritooyee ba léegi loo xalaat sa bopp rek danga ma koy wax waaye bii moom. nanguwoo maa wax dara. dara sa xel Astel sama xel bi am benn xalaat bu bon maa ngi defaree kafe lan ngay naan. delloo. en tout cas moom tey duma fanaan ci dal bi ci salle bi lay fanaan ndaxte taluma ko mu wékk ak ku mu teg ay loxo. <laughs> essayé ko sa yaram rek moo ko dul fekkee. eh Bubakar naka kamu? Selalu va lu bees booy loo yërëmtalu ni ça va nice nice job. Yang ngi yërëmtalu deh. Gak kay jox ko Kamu ada konek apa? Boy, merci Selalu best. nice Kamu mau tax nga new, ñu strategi. mais booy

dem wuti ben appartement xam nga bàyyi ko gàll bi quoi. non yow xàmmeetuma la comment ça nga mom sa keur na da nga génn ndax jigen bobu xolo lolou du xalaté de ana ñu ko takki won mais ñu dama len xam dama len loué won dama dem Sandaga wut ay grand loué len kenn ki mi ngi tudon Njaga grand Njaga kenn ki mi ngi tudon kasse kenn ki Mbay sen ma loué len ñoo takko ko mais xam nga ñoñu xaw xawma len voilà ngay dem luyewaat ñu ñëw tas sëy bi su boobaa man sa xarit maay génne Lisa ak ay bagaasam ci biti ñun duñu ay tubaaba ah. ay certificat mariage yooyu yëpp amu ci woon takk suuf la suñ ko tasee jeex na boobu man maa lay jëlal assurance comme quoi que booy bi dina dem nga dem. mais da nga foog la yombee. bien sûr moo fa nekkoon dañ ko xutbe woon tas nañ ko mais jeex na.

dafa ci yu nekk après naa la woo luyel gars yi rek coow du jib léppay rek la maa la ko wax bisimilaay jam wan ndey mba jam ndey yow lay waxal ak sa bagage yu bari ci guddi gi mbaa jàmm la yay dal du bu Boubacar mi ñak fayda mi jabaram bu mu takkoon takku suuf mo ñew sey ci biir kër gi ki taxon ba katé dem yoonam ana baxa xo mo ñu fa lan la wax ci lim ma wara a ñay ni ne dina ko andi kañ la wax ne ci la ko yandi suba suba ci ban waxtu yaay xamugo Bayi na xel ci lima pas ko limonat, reru guro limonade reru goro bu mudin reru goro bu jigen mu dindi ko foofu door ba xaliss bi ngay lepp dina ko andi bu don sama sago nak yakke fajar gi day genn gis kenn rek jox ko ko mu andil mako man bi ngay ñew dama defone ne nga mandi valise bi xaliss bi rek la ci gisoon le nga ne mu tey daal bu waxul mu ne bu wakkat dafa ñàkk fayda jabar bu mu takkoon takk suuf moo ñëw ci biir kër gi sëy dama Lisa du ma bokk ak moom kër yaay ndey yow luy sa yoon ci loolu ndey yow man nga bëgg a yàqal ma defe nag xaalis bi sax nga def ci valise bi àndaale ko ndey di nga sumba lii nga sumba lii sotti ba pare man ma defe na loolu ngay wax si ba xayoxo yow la finalement yow la mujjee yónni nga may wax waxu ay Samba ak Demba ak Paate luy sama yoon ci loolu Boubacar moom bu fekkee ne moom ba ñuy séddale fulla ak fayda moom nekku fa woon ba amu ci loolu leneen lu ñuy régler la kuy dugg ak kuy génn bu ko toppatoo yéen seen kër sax yéen gàddu bagage nank bagage ak yenu daf leen a yomb ñoxan njaay kenn gàddu ku duggul kii génn lii lan la yow xoolal li ci jig ñeneen yow jigu la ci delluwaatal fii doo fi fanaan de fii doo fi fanaan xoolal fët fët tàggalewul mbaam ak ay noppam lu dag morom bi lay wute bubakat sa mbokk la do fa génné ni du li mo lay génné ci kër ga mbokk mo la fa duggal lool mbokk mo la fay génné té dafa jeex ba pare sax jeex na ba pare yow li soti na ba xey ko suba mu yonné xëy na bu yonné suba ca ngoon ga nga dem fa ngay dem ak mom wa légui yow loo loy mer nday muñal lu neex ak lu nakadi jeex na ba pare. ñaay li nga wax yëpp deug la déllu wat waaye ba xëy suba moom bu andee 4 millions yi 5 jours laa ko may 3 millions 500 yi bu ko andee bu ma takkee wutal ma appartement dem sëy waaye kër bu bëgg dama fa toog très bien maa ngi doon a dégg nag dëgg gis nga yow mii fullaak fayda ku koy wut rek bu yegsee si yow jeex na yaa ko yor yow moom kuy jaay daxaar na la ko dénk dara du ci manqué ndax xam naa ne kenn du ca romb di ca mos yow maa la jur maay sa yaay lii laa bëgg jigéen day am fulla jigéen day am fulla am fayda mat li nga doon d'accord naa jógal jël say bagage te nga dem te Bakhayokho yónnee nag na Bakhayokho gaaw boo demee bul lijjanti bu Boubacar lijjantil ma Bakhayokho lim ma war a yónnee lool rek laay xool man gisatuma dara moom rek laay xaar. ah chérie ñëw nga foo nekkoon yàgg je commençais à me faire du souci ba jàmm. jàmm rek kay. dama la defal ndox bu si kaw da nga bëgg a sangu tu préfères qu'on passe d'abord à table. Boubacar.. Boubacar.. Boubacar.. Boubacar.. Boubacar.. Boubacar.. Je t'aime.